yu bëgg am yéene ci seen réew bëgg seen réew bëgg seen réew am yéene ci seen réew pour vous dire Ousmane Sonko bi may wax nii secteur heures du matin boo ñëwee bureau da nga ko fay fekk bu génnee foofu noonu une heure du matin la bu gaawee ba gaaw une heure du matin te ñi ko wër ñi muy liggéeyal ñi muy liggéeyal ci boppam nga xam ne da leen di liggéeyloo di leen rotation wal H24 ñoo ñoo am coono ci seen yaram ba ñëw di ma boole moom di wax ne waa ji day liggéey sax samedi day liggéey sax samedi même GPS bi gars yi bu ñuy def seen affaire dimanche lañ ko def dimanche bi passé n'est-ce pas samedi bi sax day liggéey et pourtant amu ci sax droit bu ko neexoon dem këram sept heures du matin ñu koy ñu muy liggéeyal ñoo ma ne jow Mollah comme yow dangay wax ñu lay dégg c'est ça waa ji da lay déglu ngir yàlla nee ko mu wàññi ndànk waa ji sept lay xëy une lay génn bureau secteur heures du matin da fekk mu toog waxal ak moom loolu ñoom ñoo ma ko wax ñi muy liggéeyal te wër ko te dafa am ay mag tamit daf ci am ay mag ay mag daf ca am ay mat yoo xam ni dañoo am nañ ñoom comme moom nee nañ moom moom li Sénégal bu taxawee xamatul njaboot ñoom nee nañ dañoo am yi njaboot bëgg nañ di nekk si seen i soxna bëgg nañ nekk seen i doom te waa ji rotation bu muy def kenn sa infernal nit munu attanu ko ñoom seen bopp ñoo ñëw boole maag moom et di le dis haut du benn yoon du ñaari yoon ba bërki démb démb la mujj lañ ñawaat ci man dama wax yow sa waay li la waxoon ba léegi waxoo ko waaj wax ko waa ji dañoo bëgg mu wàññi mënuñoo liggéey lundi ba samedi secteur heures du matin ba une heure du matin waa ji doog a génn bureau dañoo sonn te ñi muy liggéey ñoo ko wax du ay waxam moom Ousmane Sonko donc comme nit nag ba comme moom réew mee ko sas ñeneen ñi na leen bàyyi xel di ko ko ñaan quoi parce que gars yi ñoom wax nañ ko ko ba sonn nag <laughs> waa ji mu daa mel ni yaram bi xaw ma yaram bi fer la xaw ma xaw ma lan moo ne ci yaram bi man je comprends même pas naan ay fer xam nga gars yi ay doomu ay fer la ñuy naan médicament moom est que duy naan ay ay weñ est ce que du taxaw du taxaw du taxaw du nalaw du taxaw du nalaw du taxaw te loolu mun nga ko gis sax ci campagne électoral bi ni muy fonctionner doomu aadama mënu ko fonctionner même campagne électorale bi amul kenn doon def comme moom tout un pays lay wër en moins de vingt quatre heures ñu mu ñu mu doon àndal ci campagne électorale ñëpp a feebar ñëpp a sonn ñëpp kenn attanul niveau day dugg day ñëw def day ñëw une heure deux heures du matin trois heures du matin ci ay ab gox def fa campagne électorale am teg ko ci oto bi ci àll bi la ñuy ndogoo weeru koor la ci àll bi lañ doon ndogoo ci àll bi lépp ci àll bi waa ji du dugg ci néeg nii lay def oto ñu euh, fu mu fu mu toog fauteuil bi nii lay def kaaj mu tëdd mu def nii tëdd muy njëkk a yeewu ñëpp diggante bu muy xef ak bu muy bu muy xippi benn la te te la yeegaay moom ci bopp ñu ne Sonko mooy yeegaay jóg leen jóg leen jóg leen gaaw na mais ñu naan nalaw ma deux heures temps ñii mel ni ñu màndi ñii sonn bu ko defee saagu yërëm lay yor day génne saagu yërëm rek dóor wara mu dugg fenn <laughs> xëppoo benn kii bi fomp solaat yërëm teg ko ci noonu la ko son ko doon defee ñu ànd ak moom campagne xam nañ ko donc waa waajooju noonu <laughs> dafa am bind boppam dafa am bind boppam bu ko yàlla bind boo xam ni nit nit mënu ko imaginer nit boo ko toppee to tooy boo ko toppee tooy ndax nu muy rotation lu muy eh, eh, maanaam eh, kii bu muy demee allir bu muy demee doomu aadama attanu ko nit bu dul nalaw nit boo xam foo ko fekk mi ngi toog liggéey topp affaire bi juste pour bugg a respecter promesse yi juste pour bugg a respecter li mu wax sénégalais yi juste bugg a respecter lu ko sénégalais yi sas li et cetera et cetera nit ku jara yërëm la nit ku jara yërëm la sincèrement dimanche du lekk du naan dimanche kese la njabootam di gis dimanche Ousmane Sonko buy génn këram waa këram a ngi nalaw Ousmane Sonko buy duggaat këram waa këram a ngi nalaw wallaay billaay am na doomam doomam bu jigéen toog na di laajte papam doomam bu jigéen moom toog na di laaj papam kañ kañ lay ñibbisi noonu lañuy ñuy nalawee xale yi doomam yi noonu lañuy nalawee di laaj seen yaay ana sam papa ana sam papa ba nalaw balaa ñoo yeewu la lan demee fekk moom tegaat na ko ci dimanche ba dimanche la ñuy gis seen papa ñoom dimanche ba dimanche la Ousmane Sonko ay njabootam yor na ay xale. yoo xam ci prison bi sax la gënoon am temps di nekk ak ñoom ñuy jaar foofu di football di foog moom ak yooyu gisatuñ ko seen papa ngi ci bureau yi suba ngoon guddeeg bëccëg suba ngoon guddeeg bëccëg rythme infernal donc kii day liggéey kii kat la musuñu am président bu mel ni moom ci physique ci taxawaay ci nu mu bëggee réew mi ci pas-pas bu mu am ci pastef bu mu am ci amour bu mu am pour sa patrie patriotisme bu bu nekk ci moom bu koy alimenté doom ab musul am ci Sénégal musul yàlla musul ko bàyyee Sénégal baaxee Sénégal ay complexe lañ fi amoon ay paa lañ fa amoon yu jiital seeni dex ay paa yu mënul dox ay paa yu téye ay bant ay paa yoo xam ni seen gémmiñ yi dañoo mokk mënuñu wax lu leer ci gémmiñu nit yi ay paa yu lok ay làmmiñ lot lañ fi amoon xam ngeen Ablaye Wade bu doon wax nu muy logo la waaw mais yow ah du ma sa morom du ma sa morom nag xam nga xam nañ loolu du ma sa morom ah loolu lay la parce que man seen morom bu bàyyi la ah ah soo ko ma nga xam ne kii mag la magum jëmb la Macky Sall log log la ah da ma koy jot boo ko bëggee da ma koy jot non mais non mais man doo doo ko te kii buy wax leer nañ nii nga xam ne kii booy la. yorul ay gémmiñ yu mokk wala ay làmmiñ yu yu yu lew buy wax leer naññ comme nu may waxee fluidité donc kii bokkul ak ñoom ñoom ñoo ku ci ku ci àndoon ak Ousmane Sonko tooy c'est par la même chose kenn du teqale lii ak lee tey jii en moins de deux mois de pouvoir ñu ñëw fekk ba yow <laughs> xam nga dañ ne état seen une continuité tey jii bu fekk prix bu toll bu ko fekkloon fii soxlawul mu koy wàññi xam nga fii lan moo tax développement am fii mooy état est une continuité loolu fii la fekk baax parce que ki ñëw patriote lay doon day liggéey réew mi liggéey lépp lu mu mën a liggéey du sàcc dara ñi mu wut sàcc un franc léegi ki ñëw kooku soxlawul muy wàññi day ñëw rek continuer parce que daf fekk lu baax mais ñun suñuy njiit yi comme ku mel ne Ousmane Sonko munoo fee continuer tous lépp la ñu rajaxe kees état yi furux ñu warax ko terrain yi farax ñu jaay lépp sàcc lépp place ya ñu jaay lépp ñu jaay mais looy continuer prix ñu augmenter looy continuer brek ngay def boo ñëwee lépp ngay tàmbale à zéro kooku bokkul ak fii nga xam ni continuité la ni ngi mel ni appartement bu ñu meublé ba pare nga ñëw <laughs> mais continuité la da nga ñëw tëdd mais boo ñëwee fekk appartement ba ñu jël lépp rajaxe lépp dara desatu fa même karo yi dañ koy loqati yóbbu mais <laughs> looy changé ana continuité ana continuité ana continuité bi foofu kenn mënul continuité loolu loolu amul continuité donc état l' état est une continuité ba ngay dégg ci nasaraan yi la parce que ki fa nekkoon day def li nga xam ni da prix yi da koy wàññi lépp mu wàññi kon kay bu ñëwee du tal loolu les besoins primitifs day fekk ñu régler ko mooy ay lekk naan solu fooy fanaan et cetera c' est les besoins primitifs du pyramide de Maslow ñoom dañ koy régler am nañ dañ koy solutionner. léegi boo ñëwee ñeneen keneen kuy ñëw moom yeneen yi lay xool mais pas ay besoins primaires yi les besoins secondaires lay lijjanti parce que primaires yi fekk na waajal la ne continuité bi fekk na yéegal na à l'échelle à l'échelle yéegal na ko ba mu toll foo xam ne yow boo ñëwee da ngay ñëw rek continuer mais ñun dañuy fekk waa ji nga xam ne moo fi jógee dafay rajaxel lépp du fa bàyyi keneen du may keneen ki chance day ñëw balaa moo dem trésor public bi mu effacé ko det yi mu effacé det yi mu maye mu effacé maye ma jël jël det fiscaux yi maye lii mu saraxe lépp ja jaay lépp jaay pétrole ba jaay gaz ba jaay zircon ba lépp mu jaay dem yoonam mais pan continuité léegi ki ñëw problème bu rëy lay am normalement Sonko ak Diomaye war ñu leen woon xaar léegi sax ci ci résultat lu ñuy la ban résultat lañ war a mën a def nii jàpp jàppale ne dañoo dagg ci seen yaram pour jox leen lii dañoo dagg ci seen yaram